moo xaaral ma wax la rek gërëm naa la lool. Ani Mor Ngom. muy ma gërëm naa la lool tre bien waaye waay waxaatal keneen. Ani Aminata Touré ma wax la lenn rek lenn laa lay wax. li nga wax ni li nga wax ni lenn laa mënul rek ndax jànguma fecc moo tax mënuma fi ndaw rabin ndax sama xol sedd na lool tudd nga loo xam ne amal naa ko tontu bu leer Macky sal élu président de la République Macky sal élu président ñi nga tudd fii. Aline Badara Cissé remporte colère était premier ministre ministre des affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur mon ami et frère sama gàmmu sama xarit Mbaye Ndiaye nekk ministre de l'intérieur monsieur Mor nekk ministre des infrastructures Aminata Touré. nekk garde des Sceaux ministre wax. laisse-moi terminer waxuma nga koy conjuguer au au passé. non pas wax au passé. bu fekkee ne yow comme yow doo Cissé Lo Cissé kuy fàtt kuy koo xam ne ne li may wax nii dama bëgg mu déglu ko di fàttali démb di xam ne ne àdduna taranga benn bis rek mu war naa tax nga warul tax nga fàtte bis téeméeri bis yi fi romb loolu du ngor ñii tey Aminata Touré nekk présidente conseil économique social environnemental troisième institution de ce pays kooku gradam yokk nañ ko wala yokkuwuñ ko c'est une institution qu'elle dirige nekk jigéen bu baax li ma wax Mor Ngom tey aujourd'hui il est ministre ministre auprès ministre auprès du président de la République après toutes ces les relations entre le président de l'APR Macky Sall et ak relation ak benn ak tous les partis politiques de cette coalition grande majorité présidentielle ñoo mor ñoo mor la ko dénk loolu nga foog ne du confiance nga xam ne ñii ñoo dajalu élire la mo euh, kii Mbaye Ndiaye ma wax la leen l'APR un parti au pouvoir mbay Ndiaye la ko dénk mu nekk directeur structure de la tu crois que loolu du responsable Mahmoud Saleh yor responsabilité ci wàllu stratégie politique am xel lool ma wax la ko am xel lool ànd ak président lool nekk ministre d'État auprès du président de la République madame la présidente ancienne présidente ci faamu APR Marème Badiane madame Badiane nekk ministre d'État auprès du président de la République Alioune Badara Cissé aujourd'hui là où je parle fan la nekk médiature. oui avant muy dem médiature pourquoi ce genre de chomage man mii man du ma Samba dem ma man Farba Ngom maa la wax ànd nañu fii man ak moom ak président ak ñoom Benoît Sambou ñu dem Mauritanie en ce moment Abdoul Aziz était président de la République. Benoît Samb boobu nga wax rek ministre de l' agriculture xaaral ma wax la rek. c'est-à-dire boo mënee ñu mënee ñu àndaloon nii rek baax na nga xam. soo de il y a des choses koy comprendre nga toog ci conseil des ministres mercredi. bala nga koy xam nga toog ci dañoo dem Mauritanie ñu loger ñu ci biir palais présidence de la république dîner cocktail dînatoire bi war a jot ñun ñëpp ñu war a dem restaurant ci ci biir pale bi dem reer. ministre yi dem ñun ñi député yi dem ñi àndoon ak président ba ñaari chef d'état yi ñëw toog laa la wax de ñëw toog foo mos a gis loolu loolu man mi jànguma école mais duma def yooyu yooyu erreur billaay du caaxaan su ma àndee ak Macky Sall fen mu dugg ba pare ànd ak beneen chef d'état ñu dugg ci dîner bii dinaa dem dugg sama néeg jël doli paraan naan ko mën a sama bopp day metti mais ñëw ñaan encore garde corps yi ah dugg si biir foog na ne Macky Sall bi ma xamoon démb ñuy bokk di waxtaan anglais how are you I'm fine I miss you a long time am no see you yooyu mbir quand il chef de l'état moroom la affaire yi du noonu un chef d'état yaa un écart président de la bu nekkee sa doom nekk sa waajur nekk sa xarit nekk sa mbokk yépp jox ko cër yi nga xam ne yu ñu war a jox jox chef d'état ba pare bu askan bi toogee su ngeen toogee yéen ñaar rek ngeen xakkataay di loolu mooy xam tuuti luy àdduna te tamit ah du ma intellectuel mais xam naa luy état état état du nit ah. <laughs> Pape Mbodj état du nit. état du nit. état mbir la boo xam ne dafa garaaw. imagine dama la dama la opposant yi xam nañ ko. opposant yi nekk fii xam nañ ni état du nit. <laughs> non non non opposant opposant Macky Sall yi. Oh, oh, oh, xam nañu ne état du nit même ñun ñi nekk au pouvoir xam nañu état du nit. non opposant yi ñoo la gën a xam opposant yi rek ñun ñi nekk au pouvoir nekk ci parti Macky Sall APR nekk ci grande majorité présidentielle bi Macky Sall di jiite xam nañu luy. état état nit. ta mbirum bu am doole la pouvoir la. mbir la boo xam ne ne waay waay waay waay sama gor age Mansour mbay nee na nee na maa ragal état. xam nga li tax mu ragal état <laughs> daa xam état rek. waaw <laughs> man man man dama doon xaar. waaw waaw mais daa lu état boo ko xamee da nga koy ragal. Euh, honorable nit warul bokk conseil de sécurité chaque lundi di toog ak président vous avez tous les renseignements de ce pays nga xam si 14 millions ñi koy am bariwuñ ministre de souveraineté nga yor affaires étrangères waaye yow mais quand même. Euh, honorable man dama yaakaaroon ne dama doon dama yaakaar mi góor la may ma si xam nga man man bi Macky Sall nekkee euh, président de la République son son premier mandat il est élu président nekkuma ministre conseiller nekkuma conseiller spécial nekkuma dara mais xam nga lan moo ma ci lan moo ma neex ci moom ñi nga xam ne am nañu niveau intellectuel bi yëpp jël na leen teg leen ci wetam benn. Euh, honorable ay des comme ñoom abuloo dugal leen membre du gouvernement tey bu yàlla dogalee. mbir mi changé léegi dama bëgg la. nit fàtte daal man bi ma la laajee dama foogoon ni da naan ma Mbaye Ndiaye mooy ministre de l'intérieur ba tey wala Alioune Badara Cissé. mooy moo nekkoon ministre de l'intérieur Alioune waaw man xaaruma loolu. réew moom président de la république président de la république ba tey. responsabilité politique. dama doon xalaat lenn nga yaa ngi juum. mais yaa ngi juum Pape. Ah. dama doon xaar. Macky Sall mi nekkoon président ba tey mu ngi nekk président mais il a un mandat élu par le suffrage universel. mais ko ak yéen ba tey non laisse-moi ba tey. mais d'accord naa mais mbirum pal. bu doon moom rek bu bu mbirum pal tant que du mandat. je doon benn benn anecdote rek nga comprendre Matar Cissé. Mm-hmm. bi président nekkee président de la république. daf ko fekk directeur général de douanes yóbbu ko ministère du budget jële ko ministère du budget def ko directeur de cabinet du président de la république fan la bi mu ko jëlaatee fan la ko yóbbu Sénélec directeur général Sénélec il est plus ministre il est directeur général bu Sénélec mu am ministre boo xam ne moo ko tiim. loolu moom laisse-moi terminer aujourd'hui gis nga mbiru yàlla benn. gis nga mbiru yàlla benn loolu moom daf ci ay. non ko ci suuf. loolu moom daf ci ay quoi waaw yow yaa yow yaa yow yaa boobu gis-gis rek mais aujourd'hui il fait partie du gouvernement il est ministre de l'énergie et du pétrole loolu benn anecdote rek laa lay wax ça veut dire quoi mbirum pal Abdou Mbow qui est un ami combien d'années il était vice-président. tey bokkul ci ñi nga xam ne ñoo ko jiite ñeneen ñooy ñooy ñooy toog ci boobu mbir mu nekk ñu nekk vice président de l'Assemblée nationale te terewul ni mu ngi continuer di dem Assemblée nationale di plaider le gouvernement di jàppale la majorité présidentielle ñoom Awa Gueye ak ñeneen mbirum politique. surtout ci wàllu responsabilité ci président koy joxe nekkul loo xam ne rek dañ laa war a daaj comme ponte c'est pas ça un état dafa war a circuler di wër ñenn ñi nga xam ne aujourd'hui ce sont des intellectuels comme ñi nga wax nii te kenn ëpp leen engagement ci biir APR mosu ñoo siège gouvernement dàkku ñu leen jàng ñu yor base politique ñooñu luñ fuñ ñooñu fuñ leen demaloon luñ leen gën ils la là aujourd'hui nekk des intellectuels de haut niveau xam histoire réew mi xam politique réew mi te bokk ci ñi engagé woon jàppale Macky Sall mais mbirum mbirum pal dafa nekk ay wërsëg mhm. te tamit nga comprendre bu la Macky Sall yéene àdduna ak li ci biiram su date bi jotee war a jeex rek kenn mënu ci dara. d'accord honorable loolu gëm yàlla la nag. d'accord c'est pas le genre de Cissé Lo la. tudd nga léegi xam mbaam sax ko gën maa ko wax. wa wa am du nit. mais xam nga loolu aussi lu ëpp la boo ba wax baat boobu. non non non non non non loolu aussi loolu loolu loolu dafa ëpp ko si. lu tax nga wax du non mais loolu dafa ëpp. non non non Pape Ngagne xaaral waxu la lu toll noonu. dëgg non non non non xaaral ma wax rek. ma wax la leen. non loolu dafa ëpp quoi. xam nga lu tax may cité loolu. wallahi lazim du caaxaan. non loolu dafa ëpp dans l'APR histoire politique de l'APR. li Macky defal Moustapha Cissé Lo ko kenn ci biir APR. je le dis haut et et je défie quiconque. mais parce que Moustapha ku soxla mu ñëw débat ak man. Moustapha Cissé Lo dafa defal lu ko kenn defal base politique fi mu bokk te y a eu un changement automatique. Moustapha Cissé Lo d'après avoir quitté à Touba milité Dakar l'électorat s'est augmenté nga xam ne nañ kii amoon na engagement. mais arrogance am ak doxalinam bu ñaaw ak ñàkk respecté kilifa diine yi ak ñàkk warmal doomu aadama tax na ba nga xam ne ni ñu bëri noonu ñu ma ko ndax jëmmam regarde l'électorat de Dakar aujourd'hui Moustapha Cissé Lo doful bay naan dafay jiite euh, mairie de la ville de Dakar c'est c'est que nit boo xam ne ne da ngay jël ay kaddu la wóor ne xam nga après même notre ah, législative dafa taxaw mu ne mu ne man maay nekk président assemblée nationale honorable mais baat bi nga wax dama bëgg nga ah changé nga ah, kaa xamul sax dellu parce que dafa ëpp non da kaa xamul rek non non non caaxaan ma ne regarde l'histoire politique parti nga xool histoire politique APR nga xool bi Macky Sall faloo nekk président laal bi ba tey laa la wax ba tey jëlal ma kenn rek kenn laa la wax koo xam ne ne defal na ko lu yem ak li mu defal Cissé Lo te loolu mooy li ñu xam ci biti li nekk si biir boo ko xamoon dootoo ko jox loxo yow ndax xam naa la jomb nga def yenn yi. bi muy am na loo xam ne dafa garaaw. bi muy perte député am ci assemblée nationale. waaw moom rek moo parti député benn. bi mu koy perte kan moo perte. non non non ma ne la lépp fu mu ko demaloon. ak engagement bi dafa am privé. ma ne la ma ne la daf koo daf koo daf koo fay ba wis ko boo xam ne mënu koo fayaat ci àdduna. ci sa Siteu la mooy kan il avait un engagement saa nee naa la du ma ko bañ a tudd ndax du ma iñaan. mais engagement mooy fal. déglu ma wax la rek mais mboolooy fal du engagement rek. mbooloo bu amul engagement. du fal kenn mbooloo bu amul engagement du fal kenn. ma ne déglu ma wax la rek. bi mu jógee Touba ñëw fii Ndakaaru di fi milité ba pare encore xawla si seen num ñu yabee ñëw fii di milité Dakar ne naan yoof lay dem yoof dañ ko fa soxla ñun le ministre de la santé Abdoulaye Diouf saar gagné sa commune moo sauvé l'honneur de ce département 18 communes de Gorée jusqu'à Yoff nous avons qu'un seul maire à tous les autres maires ce sont des gens de notre coalition que nous respectons beaucoup cey Macky sal man bu ma déggee benn doomu aadama yëkkati kàddu nga naan Macky Sall fàtte na ay nitam démb waaye waaye l'histoire politique de ce pays est devant nous aujourd'hui Aminata Mbengue Ndiaye ñëw fii toog ci place bi nga xam ne foofu la faloon Ousmane Tanor Dieng nekk am démb mu jël même ministère bi encore jox les gens du parti socialiste jox ko notre ami frère Ali Ndoye donc d'accord euh, non laisse-moi terminer Moustapha Niass yor un pré euh, nekk un président d'un parti coalition cette grande majorité présidentielle amul benn coalition ci histoire politique Sénégal bi mu si comme bi nga xam ne ne coalition bi Macky Sall jiite AFP hmm. aujourd'hui est le président de l'Assemblée nationale parti socialiste et la présidente du haut conseil des collectivités ouais, territoriales. waay waay waay waay waay. réfléchir toi aussi. mais mais nous encore. aveu non honorable aveu bi def. Ah, non dama bëgg nga ñëw ci. non da nga def da nga def aveu yàlla maye nga bokk ci wàllu politique. honorable bokk ko ay gor. bu mbir mi xewee dang leen ci boole sóoraale leen ay parti socialiste sont des grandes partis très organisés AFP ak yëpp ñu fi fal tey. Farba. non da nga xam nga c'est normal. da nga def bu amee dara jël rek tuur ko ci kaw APR. et loolu les les autres coalitions yenn saa yi da ngay bëgg ay mbir sax li ngay bëgg ni du la arrangé li mu def nii lii stratégie politique la te ku bëgg Macky Sall déggantaat nga bëgg APR continuer di gouverner yii da nga koy saluer parce que bu jëloon tey war am war léegi yàlla yàlla yaram Ousmane Tanor ji ci ni mu demee nii jëlaat poste bi rek ne karab man mi bokkoon naa si ñu ko doon lobbying. Hmm. waaw yow moom li ngay lobbying bari na de. mais déglu laisse-moi terminer. ah non non ma ma pour kan pour man de. dama doon xalaat mbirum APR mu ne ma Farba am na loo xam ne mënuma ko man Macky Sall Ousmane Tanor Dieng sama jaar-jaara moom nekk un homme d'état jox ma considération lépp lu ma musaan am na benn teraanga bi ko Ousmane Tanor jee lebal moo nekk ci xolam mooy lan bi ñuy ñëw ci investiture bi législatif dañ toog ñu ne une commission pour l'investiture notre coalition mhm. Tanor ne moi j'ai laissé tout dans les mains du chef de l'État président de la République mhm. loo def baax na man dinaa mën a waxtaan ak samay parti loolu mu nekk sac bu rëy boo xam ne ne président Ousmane Tanor Dieng teg na ko ci am mu ne tey Ousmane Tanor Dieng yóbbu dem ci loo xam ne ne il s'est beaucoup bâti pour notre deuxième mandat ma jël porte bi rek fokkati ko jox ko un garde la paire ne ñii waa PS comme Ousmane Tanor Dieng jam na li ngeen waroon am ci man dinaa kon mën naa continuer di bàyyi les deux ministères ñuy exercer mais du loolu mooy ànd damay jël poste bi delloo ko parti socialiste ñoom laa ko joxoon. Ousmane laa ko joxoon mais il avait dirigé seen poste ministère encore ministère de la pêche ma jox leen ko lépp ci partage lay tegu rek quand même